mbooleem julliti Argentine yëpp ñu ngi lay nuyu ci turu sëñ Assane di la nuyu ci turu sëñ Mortala Sall ak sëñ Bamba ñang ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci fédération bi yëpp sëriñ bi ñu ngi lay ziare bu baax nag di am mbégte bu baax di sant yàlla ci teew gi ñu teew sa kanam te teewoon fi daaw ay ay ati at ñu ngi ñaan yàlla mu yàgg tan yàgg fee ñëw yàgg fee indi liggéey bi ñuy liggéey mu jëm ci xar yoo xam ne ndigal la lu jóge woon ci Serigne Touba jëm ci maam Cheikh Fall mu ko doon ndigal loo xam ne xarit la yoo xam ne naka jekk maam Ibrahima Fall daana ko jox Sëriñ Tuubaa addiya lu jëm ci tabaski kon loolu ku ko fekkee ba def ci sa sam ñax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci loolu kon ginnaaw nuyoo bi ak ziar bi ci turu sëñ Assane ñoo ngi lay jotli nuyoo mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi nekk Touba Argentine yëpp rek ak seenub di ñaan yàlla ni ñu ko waxee woon rek nga yàgg fi loolu te wér ñu yàgg fee ñëw at at yàgg la fee fekk ci barkeb Cheikhul Khadim waaw mu mel ni dafa am kàddu yoo xam ne dafa bàyyi ko ca taalibe yi nekk fële rek muy taalibe Sëriñ Tuubaa ya fa nekk muy ñuy sàkku ñaan ginnaaw bi la ñaanalee nga ñaanal leen yàlla suñu borom jafe-jafe ya fa nekk ak fitna ya fay xew ci ci weer ci at yii yàlla suñu borom jeexal ko ba nga xam ne ka fa nekk nekk njiitu réew ma may nu taalibe yi Sëñ Tuubaa yi jàmm mu jóge fa ci élection yi di ñëw octobre allah allahu taala loolu daal taalibe yi woon na démb ci guddi ne nu bu ngeen taxawee ci bu ngeen teewee ci kanam sëriñ bi di ko jébbal liggéey maam Cheikh Rafal boobu ngeen fesal ko ngeen ba sëriñ bi dégg ko muy ka nga xam ne moo jiite réew ma te nekk fa ñeenti at yëpp dafa war a dem ci élection octobre incha allahu taala ñu nga ñaanal leen yàlla suñu borom mu jóge fa te ku gën ci taalibe yi ñëw fa di ngir ñu mën a yaatu ca dëkk ba dëkk ba mën a nooy ñu gën gën faan mën a liggéeyal Serigne loolu daal ñoo ngi koy baax euh, faal nga defal nu ci ñaan bu baax a baax a baax ndax ndax kat fee ñu nekk liggéey jaamu yàlla liggéeyal Serigne Touba ak maam Cheikh Fall waaw liggéey jaamu yàlla liggéeyal Serigne Touba ak maam Cheikh Fall loolu rek nu fa bàyyi kon nga ñaanal mu yàgg lool ci barkeb maam Cheikh Rafal tan daje cee ngërëmul sëriñ Tuubaa li muy wax ne waqat yi xaw aa ijël la si na daamu fi xidmat yi wa hab lahum maaraamu kon daal sëriñ bi kaddu yi ñu ngi koy jégalu nag yëkkati kaddu gi ñu yëkkati sa kanam te warut waaye day kaddu ndigal ñoo ngi koy jégalu bu baax a baax di ziare ñëpp rek di ziare mbooleem ñi nga xam ne ñoo jógee eh, Argentine ngir teewee jotaay bi ngir teewee ziar bu am solo bu màgg bi nga xam ne damay faral di wax rek jëpp addiya ju jógee ci maam Rafal jëm ci sëriñ Tuubaa lu ñu nangu lay doon waaw addiya moom mën naa jóge fenn ñu delloo ko waaye addiya ju jóge fii ci kër gi dugg ci kër Serigne waa daan ko kon loolu sant yàlla bu baax a baax la ñu ngi ci sant yàlla bu wér a wér ñoo ngi jul ñoo nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sëriñ ziar suñu bay suñ bay ndaw lam fa sëñ Mamour Ndaw Mamour Ndaw di ko ziare baax a baax di ziare mbokki taalibe yëpp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe mbokki Touba Argentine ak li ko wër ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziare waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bassir di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak ak naka noonu Serigne Cheikh Jëmb Fall ibnu Cheikh Mouhamadou Moussa Fall ibnu Cheikh Ibrahima di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak ak xanaa am mbégte rek eh, teew gi ñu teewaat ci suñu kanamu kilifa gi eh, nga xam ne heure bu ñu jàkkaarloog moom rek day mel ni Cheikh Ibrahima Fall Lamp lañ jàkkaarlool te muy lu wér eh, ndax day. damay wax mbokki taalibe yi fee man leen sëriñ bi day doon wut Cheikh Rafal da koo doon mote ko sëg loolu moom xam nañ ci dara ndax day ziar buñ mos a indi fii ci réew ma la may fekk waaye wallahi asim bu ma tëddee ba digg guddi buñ ñëw suba la ziar bi damay jàkkaarloog moom jëxran waaw muy liggéey bu suñ boroom nangu di la ñaanal nga yàgg fi lool Fall yàgg fi lool mbokki taalibe yi fee nag at mu jot dañuy indi addiye yoo xam ne day jëm ci xari tabaski yi di sàkku it nga ñaanal leen ñu jekku ndigalal sëriñ bi ndax loolu dong moo ñu war jekku ndigalal sëriñ bi teyit it eh, dañoo bëgg sax nag waxtu wu jot rek nga ñuy sas ñun lool lool lool loolu daal moo ne ci suñu xol waxtu wu jot rek nga ñuy sas ndax liggéeyal la mooy suñu yitte moom mooy suñu yéenee loolu loolu mooy ak murite jaa ngeen jëf nan gën a dollee sant bi ñu sëriñ bi boolee ci boppam ndax li waral loolu bu ko neexoon ñu bañ a bokk ci ñoñi sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall ndax am na ñu jiitu woon ndax boo xoolee gaa yu baax yi nga xamee ne tey doon nan dara ci yàlla am na ñoo xam ne dañuy wax ne dañu bu ñu sañoon dañuy dellusiwaat jamononte ak Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall kon ñun bu ñu sëriñ bi dimbalee ci boppam ba boole ñu ci boppam ndax bi ñu doon nee nit ñu ñuul rek lan war a sant yàlla rawatine nag ñuy doon ay murit doon nag ay Baay Fall sëñ bi nag damaa dégg muy wax ne am murit mooy ki nga xam ne dafa namm mooy ki bëgg ki bëgg moom dem ci yàlla ak ki liggéeyal yàlla daa bokkul ki liggéeyal yàlla nag mooy Baay Faal kon ñun ku mën di doon tey ci nga ne sa yaakaar dafa nekk Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall ab Baay Faal nga ndax doxinu Baay Faal ngay dox ngir mën a am dara ci sëriñ bi ngir mu mën laa jariñ fii ñu ne ak fa ñu jëm ndax sëriñ bi li muy doon dimbale ñu dong moo waral mu ne fi moo war tamit mu ñuy woon ngir ni ñuy mën a amee dara ci sëriñ bi waaye ndokk nag. ba nga xamee ne yéen da ngeen a nekk ci barab boo xam ne barab bu sori la nekk barab boo xam ne doonut barab bu ña fa ne dañuy jaamu yàlla lu dut ay xërëm la ñuy jaamu ndax gëmuñu sëñ Touba yéen ngeen ne fa wone fa kan mooy sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall loolu rek ak cant la rawatina nag ngeen di liggéey liggéey boo xam ne day jëm day sënaw ñaq lay doon ngeen di ko jëme ci sëriñ bi mu koy jëme ci sëriñ bu mag bi kon na ngeen gën a dollee sant bu baax a baax yokk pas-pas yi yokk pas-pas yi nag weesuut ka na xam li ñu doon ñun suñ jëmmi bopp faal waaw amin amiin amiin amiin kat ci wax ji day wax ne ñun ñi ak ñi nga xamee ne ñoom lañ jiital nee na yàlla na suñu borom dimbali ba ñu gudd fan kon moom ñaan googu dafa law ba fépp nag ci àddina kon liñ doon wax léegi nañ gën a dollee sant bu baax a baax ndax wa waxi waxi waaju baax la koy waxloo loola yàlla la ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak léegi rek sëñ Asan ñu wax na ko moom mii doonul sëñ Cheikh Fall da koo doon lépp loo xamee ne tey Cheikh Fall waxante woon na ko ak sëñ dafa dëppoo ak moom te moo fi taxaw taxawaay juróom-ñaar la sëñ Tuubaa waxoon na nag na ko soxlawu ma fi am mbaar keroog bi sëriñ moom mii bi mu fi doon Cheikh lii newu fi woon am néegu ñax a fi newoon fii ngeen toog kon loolu dëppwaat na ci jëmmi boppam bii lam ko waxoon na ko bëgguma lenn topp ma loolu dëppaat na ci jëmmi boppam bii nii ndax dañoo wax ne am na loo xam ne day tax nga boole kook lenn waaye mooy jëmmi sëriñ bii nii tey loola nag kon ñun bu ñu jamonoonte ak moom di ko liggéeyal nan sant xam ne sëriñ bi dimbale nañu sëñ bi nag la Cheikh Rafal waxoon ne gone munta jaamu yàlla dafay lagg liggéeyali yàlla fam ko waxee la nit ñi war a déggee ndax boo amee doole tey mën a jóg di akam xel di dem di liggéey ca nga waral a loo xam ne boo toogee yàlla ci boppam moom moo lay wàcceel la nga doon liggéey mu ñëw ndax tubaab bi dong sax day cim xel lay lay lay àndeek nit ak doole bala nga am juróom benn fukkat mu ne la yow kat sam xel soxlaatuma ko ndax xel mi day commencé maaseloo waaye booy liggéeyal yàlla ba toll ci juróom benn fukkat yi nga xamee ne war ngaa mën a néew doole ci jamono yooyu la la sunu borom di la téyel boppam nga xamee ne aju faju rek ngay ngay doon boo amee ngërëmal yàlla ak ku amul ngërëmal yàlla soo ko xoolee war nga koo mën a xam ndax mag moo xamee ne suñu borom leeru suñu borom ne na ci moom ak nu mu di mel soo ko xoolee danga koy gën a bëgg kay liggéeyal leneen nag moom bu tollee ci yenn yi boo ko xoolee sax da koy jëppi kon nan gën a góorgóorlu ci nii ñu nekk nii ndax daayira de boo gisee sëriñ bi sàkku ñu koy gën a fonk di ko gën a téye dañuy fàttalante suñu bopp ci sëriñ bi ndax saa bu nu jógee kenn ku ne da nga yéene sa bopp lépp loo yéene sa morom rek da nga yéene sa bopp moom ngay yéene sa moroom kon nan gën góor góorgóorlu xam ne ñun dañoo am loo xam ne bu ñu am complexe gis nga milliards yi yi ñuy wax ñun ñëpp am nañ ko ndax dañoo am sëriñ bi ngëm-ngëm nag dafa bokkut ak leneen dangay dégg nit di wax na gëm na te fekk ne gëmul waaye keroog bañ joxee suñu bopp sëriñ bi sëriñ bi bu ko neexoon mu rendi bu ko neexoon mu maye bu ko neexoon mu jaay bu ko neexoon mu ne ñu toog leen waaye daf ñoo bàyyee suñu bopp ngir ñu mën a dem mën koo liggéeyal liggéeyal suñu bopp sax laay wax ndax sëriñ moom li muy am am na ko li muy man man na ko fa mu àgg àgg na fa ñun ñoo munta ñàkk ci moom loo xam ne mënuñu koo ñàkk moo ñu tax ñu daw di ko dënmal ngala ngala ngala kon ñun nan góor góorgóorlu suñu jëmmi bopp yi di gis ba ku ñu xool gis ñu ci suñu bopp yi sëriñ bi nan fexe ba bun mooy ndigalul sëriñ bi waaye nan fexe ba lépp loo xam ne tere sëñ bi la buñ ñu ci buñ ñu ci gis bu ñu ci dégg bu boobaa liñ bëgg dinañ ko am sëñ bi kat dafay wax ne soo dee ñaan la ngay ñaan ca nga koy ñaan la mu bëgg danga koy def ba loo ko ñaan mu man la ko may waaye bu fekkente ne lam lay digal defoo ca lenn boo ko ñaanee mën naa téye boppam kon nan góorgóorlu ci ndigal sëriñ bi fa seeni di di di daw tere tereem yi bu boobaa liñ bëgg ñu mën ko am sëñ bi kat wax na ne euh, tere boo gis ci sëriñ bi euh, lu gën ci ñun la waaye aaye boo gis ci ci ci ci ci sëriñ bi lu bon ci ñun la kon nan góorgóorlu tey sell tey sellal nee na jëmm ju sel bu mu jombal boppam dara fu mu bëgg àgg mën na fa ag boo déggee Cherafal di wax ne góor bu maandoo day sori yàlla ci boppam moo tabbi ci jëmmi doomu aadama yi waaye saa boo melee yeneen melokaan mu rocceeku moom toog nee leneen daal di nekk ci sa jëmm jëmm ji nii kon nan góorgóorlu suñ bëm yi di sell di sellal bu boobaal lu ñu bëggal sëriñ bi dana dana am lu ñu sëriñ bi bëggal dana am jaa ngeen jëfati ngeen sëriñ bi nag ma ngi sant tey ñaan suñu borom eh, teewaay bii ngeen teew ngeen teew ko déwén foofa ngeen ne tamit ci di di sëriñ bi dégg na leen ndax sëriñ bi li mu dégg lu ne moo gën lu mu déggul na ngeen gën a rafet jort gis nga da ngeen baax rek di ñëw di wax sëriñ bi bu ngeen kurélee jàng xasida sant sëriñ bi seerafal faj seen ajo ca kooko noona su ngeen bëggee mu jo xanaa xamoon ne yéen doxal dëkk ba ñooñu sëñ Touba yi di fay jàng xasida dafa def ay salaatu ala nabi di fa di fa jàng alxuraan yéenay doxal dëkk ba yéen a dëkk ba boo xoolee yenn dëkk yi daan coowoog guerre mondiale fi na dootul amati ndax ñooñu sëñ Tuubaa yi nga xamee ne dañoo nekk dañoo tas ci ci àddina bi kon yéen na ngeen da ngeen sant kooku ngeen wax noonu ni ngeen ko bëgg serafal dana leen ko defele noonu indi leen ku gën te ngeen am jàmm foofu noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaa ngeen jëfati nag jàngeen ngeen jëf ya rabbana salli wa sallim sarmadak ala alladi sammaytahu muhammadak يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وأبله جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالي أم بجاهه ذنوبي وأبل من يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وأبل من حفظه أو حصل بأي وجه بنبي أملا ربنا واجعل صلاة بسلام لمن لؤوا وأبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي صرت له خير قديم يا ربنا قلق سلامك لمن وابتلي بجاي خير امن يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الخبيب بقمتي وكل صالح لبيب امين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قد لي الأيادي الإذام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا غدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبلي عصمة من الإتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعل نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واحب الأنصار الباري يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد وصل يوم وسلما عليه في آلهم ومن نمي إليهم وادفع به قبل توجه العين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأ خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد الحمد لله kon liñ doon wax léegi rek nee na ci barkeb Cheikh Moustapha Fall loolu dina am na gën a doolee rafet njortu rek ndax ab murit moom li ñu wax léegi rek amul dara yorut dara lépp sëriñ bi la soo jëlee li gën jox ko sëriñ bi mu defal la la la jomb defal la li nga gën a bëgg yépp te lii nii mooy seen alal ji nga xamee ne ëllëg ak sibir da ngeen xam ne eh, lii rek moom li ñu doon liggéey ndeke lii la oto yi amul njëriñ kër yi amul njëriñ la ne ca banque ba amul njëriñ lépp dañ ko fi bàyyi waaye fa nag fa dara dul jeex. Mhm. boo fa boo boo fa yóbboo. Mhm. danga nga xam ne kat foofa rek moom moom moom moom solo. ndax tey fi mu ne ñun ñii nga xam ne tey yàlla dogal na ñuy ndaw. Mhm. Ah, danaan des na ci kanam tuuti ku ci dund lu tolloog fanweeri at. la nga waroon a man dootoo ko man dem nag ba toll fi nga xamee ne tey. na ngaa war a nopp lu naan di am yéene. yàlla dalay seetaan. kon waxtu yi ñu mën a liggéeyal sëriñ bi nañ ci góorgóorlu liggéeyal ci sëriñ bi. te mooy li jëm ci yàlla. fa nga xamee ne daal sëriñ bi mënut a ñàkk te foofa dara du fa doy nan góorgóorlu comme nii ñu koy defee nii bu boobaa luñ bëgg dinañ ko mën a waaye bu ñu dajalee ay kër nan xam danañ ko fi bàyyi bu ñu dajalee ay oto danañ ko fi bàyyi bu dajalee la jëm ca banque ba danañ ca def loo xam ne doo ko ci bëgg bu buñ mébét lu nekk sunum xel ci sëriñ bi rek nan ko def ndax moom yàlla xaarut kenn waxul la tey la waxul la suba la waxul la ginnaaw suba la nan ñaan nag yàgg fi ba mën a liggéeyal sëriñ bi waaye buñ ne buñ buñu buñu bu ñu bu fekkente ne dañoo jaayanteeg sëriñ bi euh, euh, ngor googu ñu jaayanteeg sëriñ bi nan jëfe noonu mm-hmm. jëfe gi nag weesu que ne kenn ku ne ci ñun ñoo ngi ñaan naan nan am ay milliards ba liggéeyal sëriñ bi mm-hmm. bu nee nag nan amee milliard sëriñ bi day day day day làmb xol yi mm-hmm. xool ba xam kii tey bu amee loolu dana ko defam déet mm-hmm. kon nan góorgóorlu li ñu jot am néew mm-hmm. la cay wàllu sëriñ bi nan ko def njaboot gi moom njaboot ak sëriñ bi la ba tax na du bëgg mu tumuranke duñ bëgg mu xiif duñ bëgg mu mar loolu tamit nan koy fonk bu baax kenn ku ne ca la la war ci kilife na ko def sëriñ bi dafa wax nag kilifa rek mu am solo bu nekkee ci bu bu bu ñu nangoo kilifa. Mhm. nanga xam ne la ñu bëgg sëriñ bi danañu ko defal. sëñ bi nag sant na bu baax. gërëm na leen bu baax li mu wax léegi rek doy na sëkk. dañ ci euh, euh, yëfi murit moom mel noonu. waaye moom sëriñ bi moom ni mu ko wax nee na la ngeen bëgg. suñu borom dana leen ko defal kon doy na sëkk. jaa ngeen jëfati na ngeen ko teewee déwéni déwén. képp koo xam ne aw ñaqam def nga ko ci. Mhm. mbaa yàlla dogaloon mu am mu am ak bëgg rek na la suñu borom faj aajo yi lii ngeen def nii rek mën naa soppi dëkk ba dama leen wax ne leen dafa am loo xam ne da ngeen koo mënut a xam mm-hmm. waaye la ngeen fay jëlee di ko indi ci kër Cheikh Fall mm-hmm. mooy waral loola mm-hmm. la fay des foofa door a bar daal di barkeel wallahi Fall jaa ngeen jëf rek jaa ngeen jëf man daal dañuy am amiin Fall asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokki taalibe yi mbokk ñu topp ci biiram ak ci bitim réew ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar di leen nuyoo fii ci kër Serigne Cheikh Jëmm Fall euh, xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sun borom dolli ko fi yàggal bu baax te mooy ko wér ba lépp lu mu naal ngir liggéeyal ko maam lépp mu yeggale ko ba sumb leneen te ñu ànd ko ak moom mbokk yi xam ngeen ne dellusiwaat nañ nag ci liggéey bu tedd bi nga xamante ne bii euh, fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall di Jazbul Mouride nekk Touba Argentine euh, di ci liggéey liggéey bu am solo te mooy euh, jàppale Serigne Cheikh jëmm ci liggéey Mame Cheikh Ibrahima Fall bi saa su nekk rek fu sëriñ bi xàcc rek ñoom ñu yor seen yat woo xam ne moo njëkk a dal xam ngeen ne tey nañ ko daan baaxoo defee ci lépp loo xam ne ndigal jug na nu bàyyi ko ci ki fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim wàcc ci ki fi nekkal Mame Cheikh Ibrahima Fall tamit tabbi ci seeni nopp ñu fas yéene caa jëf ba jëf ca lu kawe seen jort eh, xam nga ne fii ñu toll nag eh, ndigal li nga xamante ne bii ci la sëriñ bi toog nga xam ne ci la nekk tey jii mooy ndigalal eh, tabaski yi tabaski yi ndigal loo xam ni Serigne Touba moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima faal dégg nañ ci taarix ba tey ñu ne Cheikh Ibrahima Fall moo bindoon lettre ku baax ki na ko ndax sañ na ma tabaski ci njaarim wax na nag ku ñu wax bàyyi Lamine Diop jaxeer la joxoon lettre ba na ko yutal ma ko sëñ Bamba teg na ci yeneen nag waaye li ci gën a am solo rek te moom la ñuy waxtaane tey muy tabaski yi moo tax ñuy leeral nee na bi mu demee ku baax ki ne ko boo demee ne Ibra Fall ne ko lu fa ne ciy xar na ko dàq indil ma su jógee ci jullikaay bi nag lu mu fekk rendi ko kon Baye Fall sañuta rendum tabaski te ab sëriñam amatum tabaski ba noppi yéen nag su leen su leen su ngeen neexee tabaski yéen ndax jox ngeen sëñ bi am tabaski ba noppi kon bu ngeen joxee seenum tabaski ba nopp sañ ngeen tabaski waaye ku joxee gud sam tabaski moom sañoo amugoom tabaski bu dee ci kër Cheikh Ibra Fall ak yoon wi ni muy doxee te kër Cheikh Ibra mooy yoon wi ndax maam Cheikh ndax li fi li bu doonu sëyee seera man a Cheikh Ibra ko takk kon can nga moom lañ koy delloo mu lim jàngale mooy liy fés mooy liy dox baat dee tukki waxoon na ne baat dina tukki maag sëñ bamb rek la ñuy tudd ci lu wér daal di wax ne yoonu sëñ bamb bi maay royukaay bi Cheikh Ibra nee na ku ma jéggi weesu nga déggu te ku ak suul maa ngi daa di wax ne ku bëgg ci lii sëñ Bamba am kat man Ibrahima Fall nii ma def ngay def yéen nag gàcce ngaa laa ma ndax yéen la Seera Fall joxoñoon dox ngeen ca te xamewuñ leen ci tey dong ci yéen laa ma a gisee wax naa ko ci kanamu sëñ Cheikh jëm da ngeen di toog ba mu yàgg ngeen woote ne lan la ci lan la sëriñ bi ne fi nan ngir ñu man ko cee fekk si gëstu nu ba xam sëriñ bi ban ndigal la jot fi mu toll nii ngir ñu war caa dox kon dafa mel ni yéen la ñuy Cheikh Rufaal waxoon ne li leen yàlla jox jox leen ko sëñ Bamba ndax loo joxul sëñ Bamba dana xewi te bu xewee ko ko jox du ko jël dégg ngeen Cheikh Rufaal nag macha allah yàlla na yàgg te sax ndax tey fii ngeen fekk sëñ Cheikh jëm da ngeen koo fekk mu tayle boppam lam tayle boppam mooy ci ndigalal sëriñ Touba Cheikhul Khadim te taalibe yi képp ko mën a jot yéen nag fexe ngeen ba indi seen njoteel sëriñ bi nga xam ne tey ji bu fekkoon na sëñ bi tey daa tayle boppam ci toll ci lim sàngam yéen mu to yéen daanaka kon kon yéen jotaan ngeen sëriñ bi tey ci lim boobee ndax ñëw ngeen dugal dugal ngeen te li ngeen dugal Cheikh Ibra ci loxoom ngeen ko teg ndax mooy Cheikh Ibra ci bu wér xam nga wax na léegi sax eh, barkib seex Moustapha Fall mu yóbbu ma fu sori ndax dama dégg sëñ mëgey sëñ Omar Doumbouya fii mu wax ne sëñ Cheikh jëm moo ko ne su may wax yow bare barkib Moustapha Fall yegg naa garas kon nag dafa mel ne kon tey moom am nga fu ngeen yóbbu sëñ bi daane wax ne am naa ci seex Moustapha Fall loo xam ku ma fekku ci naaj du ma la ci sédd eh, yéen nag tey daa mel ne kon for ngeen dog bi waaye Cheikh Ibrahima dimbali nag te ku ma am Cheikh dimbali nga mën loo mënutoon mooy Cheikh Ibra ci bu wér ndax ki ma ko nettali Cheikh Ibra ko yar ca mag ña la bokk nee na ma maam Cheikh a toog ci njëriñ ba mu yàgg mu sóonu nii bàyyi bi nag nee maa ngi toog kenn nettaliwu ma maa fekkee mu génn kurus na lii lu mu ñu ne ceel mun a téye ngeen a wax mag ñu ne kurus mun a waaw kay ab laax bu ko ràccee ne ku xiif te borom laax ba tërewu la te nga xiif loo yàggati raxasu ta yëpp bu ñuy laajte li ñuy laaj araamul ta nga xam loo yeex a tontu lii lu mu ngeen na cell mag ñu ne kurus maam Cheikh na lu mu baaxoo doon ci blim am ku ne téeméer keneen na téeméer Cheikh Ibrahima mbaalan nee na am ku ne juróom-ñeent fukk juróom-ñeent maam Cheikh na lu ci gën a wér ñu ne téeméer mu ne boo koy wér du ba jot per bu xar Cheikh a wax de te taqalul ak per yi mi ngi ci nas bi bul ko jël doom ndax boo jëlee boo yëgalee sëb li manqué boobu mi ngi wax gannaawam daana su ma fi jógee bu leen ma jukkat Cheikh Ibrahima bu leen ma jéggat bu leen ma jeexaat bu leen ma càmbar ku toog ci sama sées bi bu la ma ko xeebal maam Cheikh ne lu dugg ci lu manqué ci moom danaa dugg ci bureau mottali ko am ku ne ah mun a gees na doom ku xaaj ma baarak fal mi alalam ne ko diw a mu ne ko lu tax nga ne ah mu ne ko bu def dafa nag mu ne ko dofoo te réeroo ab dof suñ koy dóor nga koy àtta looy wax mu ne xanaa bul ko gaañ dofub diwa mu ne buy saab daf man Ibra Fall ma jóge fi mu toogal ma ci saab sées say ba daana fi suuf Cheikh Rafal ne na jëlaat leen sanga ba mu set teg ci kaw sées bi ndeem toogal na ma ci saab Cheikh Ibrahima nee na bu laaj jotee su ne jox leen ma ne ne leen ko li ñuy laaj noo koy def bu ne jox ko toogal sañ sëñ ba jox leen bu fay jotee séq leen ko moom daan fii ma toog ba bis penc toog su def leen su teree ba leen su laajee jox leen su wootee wujji leen Cheikh Ibrahima Fall ne su xamul ma xamal ko su amul ma amal ko su mënul ma mën a ko maay fayta du ma jeel kon kookoy Cheikh Ibrahima Fall te mooy kii tey di Serigne Cheikh Jëm sëñ Assane ban yëg-yëg nga am tey ci ziar bi nga xam ne fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall di Jazboul Mouride bàyyi ko nañ Argentine ànd ak yëpp ñëw ziar ko sëñ Cheikh Jëm jërëjëf Serigne Mamour ndaw ñoo ngi lay nuyu bu baax te di la ziare di rafet lu kàddu yu bu baax a baax ndax yow moom ku taxaw ak yow wala mu toog a yow rek dégg dana déggit loo xam ne njariñ lay doon ci moom di la nuyu bu baax di la jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne yàgg nga ko ànd ak waa Touba Argentine muy daayira Jazboul Mouride ba fa ne ak mboolem rek képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Touba Argentine mboolem ndigal luñ mos a jot lu ñu mot a mos a jot ci sëriñ bi rek ci sa jëmm ji la bàyyeekoo di la jaajëfal baax suñ borom dëggalal la te kattanal la te xam ne yow moom àddina sépp dañ lay safoo ndax sa lépp Cheikh Ibrahima Fall làmp la waaye it du nuyu bu baax a baax nag euh, mbokk yi nga xam ne ñoom lañ àndal euh, buñ ci tuddee sëñ Daam Siise rek euh, dal di ci tudd sëriñ abdu Cissé ak Serigne Baba Ndiaye rek daanaka mot na sëkk di siyaare jëwriñ yëpp di jaare bu baax a baax mbokk mi nga xam ne mooy suñu imaamu koñ euh, di mu xaddam waaye bëgg Cheikh Ibrahima làmp lool di ko jaajëfal bu baax euh, sëñ Mamour wax ji euh, dafa am loo xam ne daf ñoo dugg lool li sëriñ bi wax ndax wax na ba ne ay góor ngeen góor gu ne na góor la war a doon kon boo demee ba sa kilifa ne la góor nga rek loolu xel mu dal la di am kontaante bu baax a baax nag ci taalibe yi nga xam dañoo nekk bitim réew tey liggéeyal Cheikh Ibra ndax kat Cheikh Ibra wax na ku ñuy wax Serigne Ngunda Ñang ne ko saaliw mu ne ko faal mu ne ko tukki de ñaar la tukki ba tedd dem yor say bokk ak tukki taxawaalu ba torox dem say bokk yor la waaye lii ma gis fii tey mooy njabootuk maam Cheikh Rahim Fall gi day tukki nañ ba tedd ndax jébbal sa kilifa ah, lu jëm ci liggéeyub sëñ Tuubaa tedd mënta weesu loolu kon nag sëñ Mamour ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziare di am xol bu sedd lool ndaw di jaajëfal bu baax a baax jërëjëfati ok ak sëñ Dame waaw ban yëg nga am tey ci ziar bi. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ ngi lay nuyu bu baax di am mbégte bu baax di nuyu sëñ Assane Ngom jëwriñ di maam Cheikh Ibra Fall Jazboul bi mu àndal yëpp ci jataay bu am solo bi muy bisub ziar yëg-yëg bi nag sëñ Mamour euh, moom yàgg na ndax euh, day lu yàgg li ñu wax Wolof ne lu yàgg dëgg la. di ko am di sant ginnaaw bu ñu santee yàlla rek te may gim ak kàttan gi ba teewaat bis bu mel nii muy ñëw di jébbali si liggéey bu jëm ci jóge ci maam Cheikh Ibra jëm ci Serigne tubaa kon loolu ku yàlla def nga fekke ko rek war ngaa sant yàlla tuyaaba ju rëy rëy rëy la kon ñoo ngi sant ci loolu di sant mboolem taalibe yi nekk Touba Argentine gépp rek ci turu sëñ Motal Sall noonu ko waxee ak sëñ Assane mi nga xam ne mooy jëwriñu jës bul murit ak mboolem taalibe Serigne Touba yi fekk jotaay bi ñi jógee ba Njaareem ñi jógee ba Touba ngir teewe si taxaw ci pàkk bii nga xam ne pàkku maam Charaay Fall la ni ngeen ko waxee ci Serigne Cheikh Jëmb doon nuur maam Charaay Fall doon kon pàkk bi pàkku maam Charaay Fall la kon ku fi teew teewal fi sa addiya war ngaa sant yàlla ni ko sëñ bi waxee rek dafa mat sëkk daanaka luy dolli sax amu ci xanaa yokk maanaam kenn mënu koo dolli kenn mënu koo yokk ndax sëñ bi moom ñaan gi ñaan ñëpp dégg nañ ko lim nu wax it ci liggéey maam Cheikh Ibra ku ci def saw ñaq ak lu mel ni lii ñu jëm ci xar yi loolu sant yàlla donc di ñaan yàlla suñu borom mu yàgg lool ñu yàgg fee ñëw ay ati ati at yàgg fee fekk sëriñ bi te daje ci ngërëmul sëriñ tubaa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf moom am na yëg-yëg tey jii eh, ci ñëw jàmmaarloog jàkkaarloog nga xam ni mooy Cheikh Ibra tey muy muy muy Serigne Cheikh jëm ban yëg-yëg nga ci tabarakallahu di sant yàlla bu baax eh, di gërëm xaadim rasul eh, di ñaan xalifa bi sëriñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi lool nag ñaan sëñ jëmb Fall yàgg fi lool te wër ànd ak wër ga dëggu te ndax suñ xol daa sedd guy ndax liggéeyal sëñ bi dafa am solo comme ni ko sëñ Tuubaa waxoon bayt boobu ku ci tënku rek daanaka mucc nga àddina mucc nga àllaaxira ñun nag suñu jëf ci àddina mooy liggéey rek Sëñ Tuubaa ak Seex Ibra suñu jëf ci àddina mooy liggéey Sëñ Tuubaa Seex Ibra ndax kàddum googu Sëñ Tuubaa waxoon ne tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin kon xidma boobu ngeen nekk Argentine di ko liggéey Sëñ Tuubaa kon loolu da am solo lool kon bi xidmatin tënk mën ci kàddu googu aw xubbin bëgg bi ngeen bëgg suñ jëmm faal nga xam ne ne ku jar bëgg la ndax mooy Seex Ibra tey ci kaw suuf te Seex Ibra képp ku nekk ci kaw suuf tey boo ne taalibi laaj ci moom koy roy ci kaw suuf képp ku ne taalibe laa rek ci Seex Ibra nga roy si taalibe ndax mooy jàngal ak taalibe kon bëgg boobu ngeen bëgg ngeen jël seen hadiya indi ñëw jox ko kon jox ngeen ko Seex Ibra kon ala kulli xaal yàlla nañu yàlla nangul yàlla nañu nangul Sëñ Tuubaa nangul ko Seex Ibra nangul ko ba bés penc te tey nag moom daanaka li sëñ bi waxoon sànq ci biir da am solo ne kër gu rafet oto gu rafet amul solo li am solo mooy nañ dem ba ëllëg jàkkaarloog Sëñ Tuubaa ak Seex Ibra ñu xam ne lan moo nekk suñu liggéey kon yàlla nañu ko yàlla nangul incha allah ngeen baal ñaax ko baax tuwaakalla euh, jërëjëf euh, jërëjëf imam euh, jërëjëf mboolem jëwrin yi tàmbale ko ci suñu asan ak mboolem murid yi ñu àndal yëpp di leen santaat bu baax a baax rek tey ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp waaye defal ñu itam xéewal yi nga xam ni sëriñ bi yéene nañu ko tey ba ñaanal nu ko ak gudd fan ak itam dëkk bi nga xam ne mooy Argentine ak li ko wër lépp sans borom sotti fa ndox mu sedd guy guy ba benn yëngu-yëngu du fa am sunu borom bàyyi leen fa ngeen liggéeyal sëriñ Touba te xéewal yi yokku ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Baay bi Mouridina Moodu euh, Moodu euh, Samb sunu xarit sunu wëllëre moom la àndal tey ci caméra bi ndeysaan mu jàpp ci liggéey bu baax a baax di ziar baax murid yi topp ci àddina si yëpp nag di leen jaajëfal bu baax a baax tey ñaan yàlla ñu day teg taw yi kookee barke maam Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf